amul sikki saaka ndax kii aada wala non manax maay borom réew mi na yëg mba commencé mba commencé war a bëri waaw am contentement ci yéen am mbégte di leen bëggee di leen ziare di bëggee sama gaay yi laal leen kër yi waay na kër e eh, tàppate bi ngeen laal kër yi tàppate leen écran bi ngeen laal kër yi tàppate bi ngeen laal kër yi kër yi yëngu na kër yi jóg très bien ngeen tapoter écran bi nag te partager écran bi. Io na live bi yéeg mu gaaw waay bu la eh wuy ma bu leen ma ndayu yëgal waay na live bi kat ndayam yéeg egg 4000 personnes ma kat ndayu réew mi waay wala boog. mille personnes laa bëgg live bi yéeg na yéeg live bi na naaw ngeen tàmpate ko bës yónnee kër yi xam nga li ñu war a régler ci dëkk bi dafa bëri dëkk bi li nu fu war a wax ak war koo régler dafa bëri na live bi yéeg sama yaram tàngagul de déedéet non non sama yaram tàngagul waxaguma dara waa ma ñëw ñi may woo appel ma ñëw ma ñëw gars yi wuy ma appel yi teel na de appel yi teel na sama yaram tàngagul sama yaram tàngagul ma xool ñuy woote appel dama bëgg live bi mu yéeg quatre mille personnes laa leen laaj ci kaw pour mu mën a wax tapoter écran yi na yegg cent mille wuyu ma quatre mille personnes ci kaw cent mille tapoter écran bi ma commencé ci yéen la des eh, man am naa dama am jot nee naa leen quatre mille personnes ci vues yi commencé cent mille tapotage incha allah ma commencé léegi bu ngeen bëggee temps bi ñu bañ koo dagg mu gaaw def leen li ma leen wax quatre mille ci kaw cent mille waaw kay na gaaw nii la nii la nii la samay xarit ngeen nag samay xarit ngeen man ak yéen danoo miinante de man ak yéen danoo xamante vous êtes mes samay xarit ngeen samay xarit ngeen quoi danoo yàgg amare sa barlando hein kasomi guardi così male ah sono in cëm sama gars yi yéen a ma bëgg de man boos man nag boos bëgg naa xam nag man lu ma defal sénégalais yi quoi saa yu ma leen woowee ñu ñëw billahi sénégalais yi ci lu ma leen ñëw woo ñoom pare nañ pour ñëw aadama rek la ñuy topp amuñu ku ñuy topp ci àdduna bi ku dul boos faale wuñ ko ñoom daal aadama rek war naa leen a delloo njëkkal nag defal leen benn affaire sagal leen tuuti bëgg ngeen ma de xam naa saa yu ma wootee ngeen ñëw sénégalais yi daal merci beaucoup léegi nag. mais numéro England bi kan la kii kan la allo Mouhamed. naam. waaw Mouhamed maa ngi nii su ma waxee ba pare laa leen di jël yow di nga dugg. waaw d'accord maa ngi ci suuf dégg nga maa ngi maa ngi lay nga xam ne man la nga. dëgg la. ok cey Mouhamed Gambien bi doon ketal boos la moom de ak ak bëgg ak bëgg dugg moom. Ola Ola boo gisee Ola ma ne Mouhamed di nga dugg ndànk rek di nga dugg. léegi nag sama gaay benn affaire dafa am dara warulu live bi loo xam ne damaa bëgg ñu régler ko une bonne fois pour tout maanaam sénégalais yi danoo yëkkati woon seen xaalis dimbalee ko ummi pour mu faj tànk bi maanaam ummi dañu ko gis mu nekk ak boos ensemble ñu gis ko muy soox yor tànkam ñépp seeni cër mat ñuy man di dem di ñëw moom yàlla natt ko cëram matul ñu génn def interview ne danoo bëgg a yóbbu ummi pour mu faju ñu def kañoot ñu ñëpp ñu dugal suñu xaalis ba nu am ay millions yu takku ñu ne ummi day faju ji xar ci suñ tàkku tubéy Aïssa doon ko ketal ak Mohamed mama gise doon leen jàppale ba nga xamante si ni ummi dajana la na dix mille euros dix mille euros nag xaw ma ñaata million lay doon Sénégal jàpp leen ne mille cinq cent yu nekk un million la dix mille euros xamatuma ñaata la ndax dama gëj Sénégal tamit mais dix mille euros daal am nañ ko dix mille euros xaalis bi mën na ko dix mille euros très bien six millions am nañ six million ba nu amee six millions jot nañoo dugal avance ba nu dugalee avance ma gise yóbbu na leen ba def procédure bi ba visa ummi génn visa ummi mu ngi nekk six mois ak une semaine maanaam six semaine la un mois la ak une semaine moom la visa ummi am ba tey jii nii mi ngi valable léegi nag Sénégalais yi li ñu war a leeral mooy. ummi visa wam génn na mais munta dem mais lan moo tax ummi munta dem parce que boos nee na moom amul visa bu ummi amul visa moom du mën a ànd ak moom dem mais damay laajte ndax boos moo la fañ boos moom moo làgge ndax boos moom la tànk yi dagg ndax boos moom la cëram matul déedéet ñun ban doon joxe suñu xaalis di ket yàlla ak ummi moo tax ndax yërëm ko gis nañ ne jigéen ju rafet la jigéen ju baax la jigéen ju set la gu civilisé la bu amee tànk ku ko gën a jongoma Sénégal amul loolu ñu yërëm ko ci Sénégal yi dajalee seen kanoj pour mu fajoo mais loolu yéen sénégalais seen mission jaar na yoon ndax la ngeen bëggoon am na visa ummi génn na mais boos moom nee na ummi du dem tànk moom tamit amul visa comprendre ngeen li war a live bi boos nee na ummi di jóge fii dem ci wax ji nu wax ñi nga xam ne ñoo doon wax nag ummi du fi jóge dem te moom amul visa ma ne ah loolu bu amee boos def na parce que ñun li tax ñu joxe woon sunu xaalis mooy maanaam tànk ummi ummi moo la fañ ummi lan war a fañ ñu def ci ay xaalis bu bëri dix mille euros ay millions millions yi nag ñoom dañoo mujj décider ñu ne comme que boos mënut a dem. ñu ne ñoom léegi dematul Europe danoo bëgg ñu delloo leen seen xaalis xaalis bi docteur yi dugalaatal nañ ko ci seen compte ñoom ñi ngeen moom maanaam dix mille euros yin ketoon xaalis baa ngeen ñoom jamono jii mais nag teewul seen visa génn na mais visa bi kenn mënu koo bloqué tey ju ummi bu ko neexoon dugg Europe ndax mi ngeeg visa wam mais jotaan nañ seen xaalis xaalis ban jotoon avance docteur yi delloo na leen ko ban dugg ci compte seen compte ñoom yoraan nañ xaalis bi bu bëggatu ñoo dem Europe tamit parce que boos amul visa léegi nag li war a bi mooy boos làggewul boos tànkam ñàkku ko boos ñàkkul bëtam cëram yi mën na macha allah ummi moom moo la fañ ummi moo manqué tànk ummi la ni faj sénégalais yi yërëm ko dugal seen xaalis léegi nag seen normal sénégalais yi xam xaalis bi ngeen dugal ana fan la nekk ak nan la mujje seen normal ngeen xam ko tout à fait normal parce que yéen a def seen cagnotte yéen a dugal seen xaalis c'est normal ngeen xam fu xaalis bi toll fu visa yi toll ah nan la xaalis bi mujje ak fu xaalis bi nekk seen normal dafa war a leer léegi nag man maa leen di wax fi xaalis bi nekk jotoon na loo dugal avance ba seen visa génn benn visa lan am nag muy ummi mais boss nee na bu amul visa du bàyyi ummi muy dem nii la kaa bi demee kon ummi moom bu fekkee su ko gënal santeem mais baax na léegi nag xaalis bi yéen ñi bëgg xam fu mujj mooy xaalis bi ñoom delloo waat na leen ko dañoo décider ne dematul Italie donte bu fekkee ummi am na visa jamono jii décider na ñoom dematul xaalis bi docteur yi dugalaata nañ ko ci compte boss jot nañ ko tey xaalis bi dugg na ngi ci seen compte dix mille euros la nag six millions six millions la jot nañ ko dugalaat nañ leen ko léegi nag liñ ci am ba di ci wax mooy man de bu doon mën a ma am sama jabar mu manqué tànk samay cër mat mu leer na ma ne sama jabar bu demee Europe dina mën a man yërmande Sénégalais yi dina ko wàcc te kenn du ko xeeb barki Serigne Babacar si ma bàyyi ko mu dem ma toog comme comme moom mooy faju man dara jotuma ma bàyyi ko moom mu dem faju ci ngor ak dignité boo wér ñëwaat fekk si ma bu doon mën a noonu laay def mais comme que boos moom nee na moom bu ummi bu amul visa moom ummi du dem man c'est dommage naa ko trop rafetlu wu ma ko man su doon mën ma bàyyi ummi mu dem. dem faju yi bari sa nawle la. li gën a ñaaw sa jabar si dëgg àdduna mooy nga am jabar joo xam ne nii tànk bi dafa cëkk wala boog danoo dagg cëram fu mu romb ñu koy saaga ndey naan xoolal lafañ bi xoolal lafañ bi ah dem leen liggéey yalwaan rek la fi nekk mais lafañ fañ bi fu muy liggéey kan moo ko yow loolu nga war koo wàccel yow sa jabar yow nga war ko koo wàccel ne déedéet du dama koy araamal ne du dem itali tant que man sama visa amul mais boos mënoo am visa parce que yow doo malaat boos feebaroo sa dara manquéwul ummi moo feebar ummi moom la tànkam nan ko bàyyi mu dem fa yi léegi nag loolu lañ décidé daanne léegi nan boos sax tey dafa taaloon live ne sénégalais bu ci dugaloon sa xaalis boo leen woowee téléphone ne leen damaa soxlawaat sama xaalis nga wax leen ban numéro ngeen koy dugal yaa ngi dégg nee na mu delloo leen seen xaalis ma ne ko déedéet loolu benn Sénégal du ko def ndax Sénégal yi ummi leen dimbali ummi leen dimbali yow yaa war a am xel kay mën a xam na nga ko mais Sénégal yi du la woo naan la damaa soxlawaat sama xaalis loolu day mel ne defuñu te yàlla tax yéen la ngeen waroon a def def ngeen ko fa ngeen waroon a jaar yàlla gis na ko fa te la ngeen bëggoon mu am lépp a sotti bu bolekee ci lii la boleke visa boos mais ummi visa wu génn na mën a dem faju ji tout à fait d'accord seen jaan wàcc na def ngeen li ngeen war a def lépp léegi nag damay dugal ñi nga xam ne ñoo engagé woon doon coow li ku ci mel ne Aïcha ak Mouhamed parce que ñoom ñoo doon wër di katal boos di ko jàppale ci wàllum xaalis ak mama gise mi nga xam ne moo doon defar visa yi parce que fii mooy laay fu aadamo lépp fii lay leeree ku mën a live ci àdduna bi moom la intéressé mais live bi sénégalais yi di déglu àdduna di ko déglu nit ngi di ko xaar mu wala leer mooy king bi maa ngi nii TFM a ngi nii fu neex waaye dem nag mais TFM moom lépp fi lay leere TFM waaw bu ma nee salaamaaleykum ñoom ñëpp ñëw di déglu TFM di ko bàyyi xel fii mooy fu leer fi fii la lépp di leere leen ko yàkkamti cas bi bu leen ko yàkkamti dama bëgg ngeen jël seen temps mën a déglu lépp déglu demande yi déglu lépp xam fa mu mujje kuy dagg-daggal nga dugal kuy jël jëlal mais dafa war a leer incha allahu tamit ñàkk dinaa ko woo ak boos tamit ñu yokk ci ay leeral jërë ngeen jëf waaw Aïcha maa ngi ziar. maa lay nuyu maa ngi nuyu ñuy seetaan yëpp mama gisee foofu mu ne Mariama foog naa Mariama la. waaw waaw maa ngi leen naa nuyu di leen nuyu ñuy seetaan yëpp yëpp um, dama buggoon a leeral fee na xaalis bi mu tudd um, ten thousand five thousand lañ am moitié bi lañ am. ok. waaw moitié bi lañ am. mais Aïssa yow tamit del préciser du leer. parce que live boo dem ne ten thousand. live boo ñëwaat ne five thousand. il faut ngay xam lu leer. déedéet Sénégal ñoo lay seetaan àdduna di la seetaan. déedéet Adamo déglul man. may ma ma ñëw rek Aïssa Aïssa may ma ma ñëw sànq seetaan naa la ci live yow ak Elu. nga dugg ne ten thousand. déedéet ma ne xaalis déedéet ma ne faj bi yëpp ten thousand lañ ñu caaj. faj bi yëpp comme bu dee sa olof leerul da ngay wax ñu la ko leeral ndax ñëpp jàpp na ne dix mille euros la comprendre wul waaye ñoom understand ne dix mille ten thousand moo nekk faj bi yëpp bismillah loolu lañ ko caaj mama gisee loolu la bil bi loolu la moo nekk ten thousand waaye five thousand moitié bi lañ fay loolu lañ deeloo tey loolu laa nekk di wax foofu laa la nekk di leeral. Hmm. ten thousand la moo moo nekk dix mille euros waaye fayuñ loolu yëpp si hospital bi. hôpital bi dafa war a dafa wax ñu fay moitié bi loolu lañ fay suñ buñ fayee moitié bi léegi ummi am na waaye boos amut bul wax ne boos moo wax ne ummi du dem ummi si boppam aadama mu ne moom du dem loolu la wax. parce que yow keroog bu ñu doon def live yow yëguloo ko suñu live bi mujj bi ummi si boppam mu ne man maa feebar man maa war a dem faju du ma demati. wax na ko mu ne moom du dem mu ne moom du mun a dem saa boos boos tam. mu ne waaw mais mamaa gisee nee na. mamaa gisee nee na ba mu leen woowee. Mm-hmm. boos daf ne d'accordul ci boppam ummi di dem. waaw di di dem moom kese. waaw mu ne. kon loolu kay mooy moom moo nanguwul ummi dem maanaam wax ji moo war a leer. waaw wax bi moom leer na waaye ummi tamit mu ne moom du dem su jëkkëram demutee jëkkër bi tamit mu ne jabar bi du dem. waaye léegi dugal mamaa gisee mu ngi si roon dugal ko foog naa def na demandé. nu mu mama gisee Mariama Maria doom li fi bi la nekk di use Mariama Mariama la foog naa mama gise bindal pour. Adamu léegi sa kële nu mu tudd papa moomu nu mu tudd. Mohamed papa Africa la fa def. Mohamed mu ne il faut ngeen leeralal Sénégalais yu leer parce que danoo joxe seen xaalis. waa loolu moo tax ñu ngi leeral baaxul. waaw yaa ngi dégg ay ñu def joxe seen xaalis ba pare ñu naan kii di dem du faju ji ba pare léegi xaalis bi nu muy mujjee ak nu ko gars yi di def loolu lépp war nañ ko xam ndax yéen a doon jox xaalis bi loolu moo tax tey ñu ñëw laaj parce que xaalis bi bu visa bi génnee dañ am meeting ñun yëpp suñ biir ñu ne boos ah affaire si de nuñ ko gisee mooy parce que umi am na visa bàyyil umi mu dem parce que moom mooy dem faju ji boos mu ne umi du mun a dem saa moom léegi tey buñ jotee xaalis bi. Mariama da nga koy wax mu commentaire su ko defee ma mën koo jël parce que. ma gisee maman su nekkee ne yaa ngi seetaan live bi. commentaire bi pour Adama mu mun laa gis. da ngay demander maa gisee pour Adama mu mun laa gis. waaw mi ñu ngi lay déglu. waaw léegi boos tey soo gisee ñu ñëw live Adamo dañu ñëw leeral sénégalais ne comme xaalis bi xam nga boos bu mu defee clip sénégalais yu bari dañ génnoon ñu ne xaalisi clip bi xaalis buñ ket la boos defee clip so loolu moo tax tey ñu ñëw di leeral sénégalais yi ne déedéet du loolu xaalis bi jot nañ ko tey waaye visa bi mu ngi valable mu ngi um, six weeks la benn weer ak ñaari semaine visa bi maa ko amee soo bëggee ma envoyé la ko sax léegi visa bi benn tey mu ngi baax suba suba umi mun nay dem léegi yi ñu xam ne umi mu ngi am xaalis bi mu ngi am visa yam tamit waaye mu ne jëkkëram mu ne du dem saa moom. waaw léegi nag. Ah. sénégalais yi dugaloon seen xaalis. waaw ah bu dee umi demul. wala maanaam xaalis bi ñoom lan lan ci fas def ak lan la ñuy waajal ci xaalis bi. léegi xaalis bi gars yi lu ñu waajal ñu ne. ñu ngi amee xaalis bi si seen compte. ñu ne Sénégalais képp koo xam ne dugal nga si sa xaalis te yaa ngi bugga pour ñu jël nga da nga bugg a nangu da bugg a ñu delloo la sa xaalis nga woo leen e, ni Wave boo leen def nga capturé ko nga envoyé leen ñoom dinañ la delloo sa xaalis ñoom loolu la gars wax. ñu ne ku bugg a jël sa xaalis rek ñoom mun nañ laa delloo sa xaalis léegi ñoom dañooy liggéey ñu dajale seen xaalis bopp ñu def beneen procédure ñoom ñaar yëpp ñu dem faju ñu ñëwaat gars yi loolu lañ wax ne loolu la ñooy def léegi xaalis bi gars yi ñu ngi ko amee ñu ne sénégalais bu bu fa def xaalisam ak gambien because nekkul sénégalais rek ñoo fa def seen xaalis gambien yi tamit def nañ fa xaalis bu bari ñoom ñu ne ku bugg sa xaalis rek nga contacter leen ñoom dinañ la delloo sax xaalis gars yi loolu lañ wax waa mais léegi li nu bëgg a xam mooy maanaam bu dee visa kii un mois la ak ak semaine lan moo tax maanaam ummi hmm. ah fajul fasul jomam rek dem faju ji maanaam toog fi mu toog topp boos naan bu demul duma dem mais boos am na ñaari tànk am na ñaari loxo lëfa ñu dara jotu ko ban koy ketal ummee tax ñu génnee suñu xaalis ba nañ joxe xaalis bi ummi leen yërëm ummee war a dem fa ji du boos ñëpp loolu lañ wax man sax ñun wax nañ ko loolu ñu ne ko ne affaire yi moo war a féete ci yoon leer waa léegi leeral boobu lañ lekka di def ni ñoom ñu ne ñoom du ah. ba ummi mu ne du boos mu ne ummi du dem saa moom parce que ummi la visa yam génn moom visa yam génnut léegi moom mu jabar bi du dem jabar bi tamit nangu na mu ne moom du dem saa jëkkëram ñu ne ñoom duñ mun a dem ñu bàyyi kenn si gannaaw ma ne ko waaye umi nekkut xale mag la mu ne umi moom daf koy jàppale dina ko dimbale ma ne ko waaye umi nekkul xale mag la mun naa dem foofu mais ñoom ñu ngi naan tamit demeewul noonu ñoom la demee kon nee na demeewul noonu ba bare ba bare ummi tey jot naa ko nee na moom Mouhamed mii ku bëgg succès la ay waxi succès la bëgg waxi bës rek lay waxtaan Mouhamed mii tey woo na ma téléphone ummi waa léegi umi su la wooyee dugal ko si live bi mu ñëw mu leeral su nekkee ne demee wut. danaa ko woo dinaa ko woo. dama koy woo. doo am lii parce que xam nga mama gisee moo nekk moo nekk eh, Italie moom moo dem ut hospital bi moom moo def lijanti yëpp ñun moom dañ fa nekk rek di di fay xaalis au something léegi mama gisee tam mu ñëw mu leeral su nekkee ne umi mu ne demee wut noonu léegi ñoom ñu ñëw ñu wax na mu demee ñun ñëpp ñu déglu leen parce que sénégalais ak gambien yëpp ñu ngi toog di leen déglu. ok lay déglu. Mohamed bisimilah. waaw asalaamaaleykum mbokk yi pour ñi ma xamut rek Mohamed la Mohamed Rahman Kouka maa changé suma tur muy Papa Africa ci gàttal ma Adamo dama bëgg nga expliquer lan lan la umi wax tey nga ne société comprendre ma boobu ma mun cee tontu. nee na yow ci boppam da ngaa bëgg bës foo dem système moo la jaral lu ne. loolu maa ngi ko téye nii li mu wax loolu maa ngi ko téye. ne fu ma dem lan comprendre yóbbu waaw. waaw ok moom nagul naa ko loolu parce que man yàlla moo ma boolee ak umi ak boos bugga leen a jàppale te yàlla tax te soo gisee ma duggoon ci su ma séer bii ci kaw muy Aïcha Singaate muy Gambie ni man fu ma ko gis lum songa la ma koy jàppale bañ ko daaneel yàlla xam na ne loolu moo ci dugaloon ba tey ma xamante boos ak umi kon nag un foog man gor gor rek laa mun a nekka te du ma nangu suma mborom mi gor gën maa nekk gor dëgg la man fi ma taxawoon laa taxawoon ci diggante Oumy ak boos mais boos ah def na erreur bi ci kanami ñëpp parce que dëgg dégga ñun def nañ liñ mun dix mille euros la soxloon kital nañ ko cinq mille euros man a Aïcha bañ eggee ci live fam ñu amal ko cinq mille euros ci biir deux semaines plus wax dëgg yàlla ah ñun def nañ liñ mun bon ba loolu weesu yee nit ñaa doon wax ne xaalis bi moom la boos di jël di ko def ay ay clip ak fii la xari jaar ak yooyu. so ñun lii lañ bëggoon a leeral tey xaalis bi jóg jot nañ ca mu ngi ci compte boos ñu ngi gërëm di sant madam Gissé bi yëg si léegi nii ci lim def ci lim ñu jàppalee parce que bu du doon moom du ñoon am hôpital bi des fois ñaareel bi tamit maa ngi jégalu waa Sénégal ak bi yépp loo xam ne tey comprendre wuñ ko wala tooñ nañ leen ci ñu ngi jégalu ñu ne jégoon rek pour jàppale te yàlla tax ñun ci lii la ñuy yëngu man ak Aïcha ñu nit dañuy jàppale doomi sénégalais ak gambien yi Aïcha jàppale na fi xale tamit Mouhamed nu leen a yëngu ci ket goo xam ne da ngeen di dajale xaalis su jàmmoor yi te dara du sotti maanaam ki ñi ngeen di defal duñ mën a dem duñ mën a def dara maanaam bu ngeen di catalyse ni diglu ma rek bu beneen yoonatee da ngeen di jël affaire yi ngeen def ko seen compte bu demee ba échec am képp ko dugaloon seen xaalis yéen yéen a koy jël yéen ngeen delloowaat ko ko wala ngeen wax ñu xaalis dugg mais di encaisser bu affaire bi réussiwul mu téye xaalis bi ket yooyu kenn waxu ko kenn du ketee noonu. xam nañ ne nangu naa loolu ketee nangul naa la ko Adamo du laajee noonu. loolu dëgg la waaw kay ñun nangu naa. kenn du laajee noonu xaalis. waaw loolu dëgg la nangu nañ ko jàng nañ ci bi yoon. ñu ngi jégalu waa senegal yëpp. waaw Aïcha ma mee la nga wax. waaw nangul naa la ko Mariam Mariama muy muy madame Guissé. madame Guissé ngi nii sonn na ci. mais tey li ñu ko wax nee na li mu nett li yëpp dara du ci dëgg. ndax ndax madame bi sa def na visa kenn du la ko may di ko boleke mais wax na dëgg lu mu ciy boleke bon li mu wax noonu dëgg la Sénégal mama madame Guissé li mu waroon a lijjanti lijjanti na ko fexe na ba ummi am visa mais ummi moom mi mooy malade bi moo feebar kon li mu war a def moom jaanam wàcc na def na ko keneen ku ci mën a defaat leneen wala ñoom la mais madame Guissé li mu war a def def na ko madame Guissé ñu ngi lay déglu bisimilah. waaw asalaamaaleykum. waaw. waaleykum salaam. <laughs> gisee. waaw bi may commencé di lijjanti papier kii yam yi daf ma daan wax naan ma ndax su ma demee fenn mun naa laa gërëm ma ni ko noonoo bul tudd sama tur parce que man bugguma siiw daal damay def rek te yàlla tax. bi may xamanteeg boos man mii maa ko contacté ne ko dama bëgg a jàppale sa jabar pour mu ñëw faju si Europe. Euh, pour pour kii pour mu am euh, protège léegi da ngay dem ci médecin bi pour mu defal euh, kii bi mesure bi pour ma defal ko wutal ko fii protège après boo si ne ma maman protège de taxu ko taxul sax mu toog parce que dafa war a opérer opérer na ñaari yoon mais opération yi fii jaarul yoon daal ba tax na léegi dañ ne dafay opérer ji wala Europe. ma ni ko bu dee Tunisie de xaw fa kenn waaye bu dee Europe moom mun naa la lijjantil parce que am naa sama benn doomu sœur boo xam ne man lañ ko tuddee yaay ji dafa gaañu te affaire tànk la amoon te vraiment ki ko opéré moom opération bi jaar na ñoon parce que tànk bi dafa sutante woon te léegi tolloona waaye nag boo boo jógee extérieur xaalis bi day cher daal mu ne ma amul problème parce que am nañ ku nekk ci gouvernement bi nee na bu ñu àggee ba ci foofu tollee foofu dina ko dinañu ko mën a fayal. Mamadou saay waaw waxuma woon sax turam ma ne ko waa baax na amul problème bu dee loolu mën naa la cee doxal après ma taal sama oto ma woote hôpitalu Bologne ñu ne ma da ngay ñëw ma taal sama oto dem def sama essence cinquante euros fay sama oto estrade di euros aller dem. ci montagne ku ne xam ne ni hôpitalu Risoli fa mu nekk ca montagne ma dem fa jël multu sax ci biir euh, Bologna multu di euros yooyu yëpp maa ko fay képp ku taq ci bos mosumaa jox 1000 francs bos mosumaa jox mille francs seen dërëm mosuma koo laal lépp sama xaalisu bopp laa doon def ndax maa doon maa leen bëgg a jàppale te yàlla tax léegi bi ma demee après docteur bi ma expliqué ko mu ne ma il faut kon mu jël rendez-vous visite ma ne ko ki ngay visite nekku fi di mi ngi Sénégal mu ne ma waaw mais dañuy def visite de loin nga xam ni moom day ñëw da ngay ñëw toog ma koy laaj après rajoom yeeg yëpp mu yónnee ma ko ma ne ko waa kon baax na ma ma ñu wootente groupe comme dañ am groupe ma wax ko ci groupe bi ne leen nag visite bi 22 euros la yónnee leen ko après Aïcha ne ma mama gisee comme que yow yaay dem di fa def sa essence ak yooyu bàyyil ñun ñi ci groupe bi kon ñu participer yow nga bañ a participer ma ne ko noonu amul problème nañ leen participer ñun ñëpp rek comme ñoo ko sumb après ñu participer ñun ñëpp xa suñu xaalis boos dugalu ci moom ñun ñii ñoo participer suñu xaalisu bopp après dem bi ma demee euh, ñu docteur bi ne ma woo ko ma woo ko mu ne ma nee na ma yónnee rajo yi mu yónnee rajo yi mu ne ma nee ko yëkkati tànk bi foto ko yónnee ma ñu foto tànk bi yónnee ko keroog bi ma gisee tànk ummi bi dama jooy sax après docteur bi ne ma léegi kii mun naa ko opérer waaye opération bi nii ak nii lay demee léegi dama lay jox fi nga xam ne moom ngay woote ak email bi ngay yónnee bu ko defee ñoom ñoo lay defal procédure bi ma ne ko waa d'accord après man ak ñoom man ak ñoom man ak ñoom ba procédure bi pare ba ma yónnee ko kayit yi mooy kayit yooyu ngeen jotoon noonu. léegi bi ñuy def loolu ñu ne mu ne lé ñu mu ne léegi euh, accompagnatrice bi day day am ku koy accompagner ma ne ko waa jëkkëram mën na ko accompagner mu ne ma waa d'accord mu ne ma accompagnatrice bi ak kii bi yëpp dix mille et quelque euro la ma ne ko waa ma ñoom bos ñu waxtaan ci ñun ñëpp comme ni ñuy waxtaanee ñu ne ni lii la ñuy fay ay ne comme que egsi na fii te xaalis bi dafa bari kon nañ leen def live bu ko defee bonne bonne volonté yi jàppale ñu après ci lañ commencé def seen live yi léegi bi ñu defee lay yi contrat bi liñ ci bindoon mooy le vingt le huit lay opéré mais vingt jours avant muy opéré dafa war a fay euh, moitié bi lay fay le huit avant le huit le vingt jours avant le huit bi day fay yeneen yeneen moitié bi après ñu defar dossier yi ñu fay moitié bi keroog bi ñuy fay moitié bi. boss daal di may woo ne ma maman man de maa ngi nii si banque bi bëgg ko dugal mais lëndi lañ ma wax ne ci la ñee ci laay mën a dugal xaalis bi léegi yow man wóolu naa la te doy nga ma teema la kaa yónnee nga dugalal leen ko foofu ma ni ko boss mu ne ah ma ni ko man du ma laal xaalis. ma ni ko man du laal xaalis du ma doo dugal xaalis ci sama tur hôpital bi am nañ email dugalal directement mu dem ci ñoom. mu ne ma maman man wóolu naa la ma ni ko billaay bos duma laal xaalis ma ni ko dugalal leen rek mu dem lundi lañ la wax lundi soriwul mu mu lundi ba mu far yàlla mu ne ma kii sax nee na naa ñëw mu woowaat ma ci kanam ne ma nee na naa dina ma ko dugalal ma ne ko waa baax na mu dugal ko mu dem. bi mu ko dugalee mu dem ñu yónnee ko kayit bi yónnee am hôpital bi yónnee ko moom yónnee ambassade bi ambassade bi woo leen bi ñu demee dugg yóbbu ñaari passeport yi ñu laaj leen li muy àndal ñu yóbbu ko. ba ci relevé de compte yi yiñ ko laajoon ak prise en charge bi sax maa ko wutal man maa ko wutal te loolu tey bu ko doon wut feneen dina ci fay cinq cent mille ku ne xam na ko Sénégal lu muy doxee man maa ko wutal fayu ci dërëm ma jox ko ko mu déposé loolu yëpp bi mu ko déposé après vingt jours yi passé ambassade bi ne ko da nga waroon a fay moitié bi il faut que ab hôpital bi kon bind ne nañ la jox visa ba pare nga door a fay après op ma woowaat hôpital bi hôpital bi ne ma duñ ko def ma leen di saraxu di leen saraxu ba hôpital ba maar ko bind ko ne leen na jot visa wam door a fay après noonu ci la ñu may ummi kese visa mayuñu boos après ma woo ñu ñoom Aïcha wax ma ko ma woowaat maar ko ma ni ko benn visa rek euh, ma ni ko benn visa rek lañ joxe léegi boos amul mu ne ma benn bu fekkee ni fay nañ beneen moitié bi dinañ fa dinañ leen jox seen visa par force la ñoom ñaan ñëpp ñu ñëw parce que Euh, pour accompagnatrice ngeen di ngeen faye moom moom la procédure bi après boos ne ma kon léegi nañ nañ ma delloo sama xaalis ba ñu am waaye man dootu dootuma laayi fati laajati kenn ma ni ko amul problème après ma woo Marco ma ni ko léegi dama buggoon nga remboursé leen xaalis bi ba ñu am ñoom nee na ñu mottali yëpp parce que fi mu ne jot yoraguñu li ñuy mottalee te ki leen waroon fayal euh, nee na du fay tant que ñaari visa yi génnul Marco ne ma kon bos mi nga xam ne moo dugaloon xaalis bi mooy bindaat yónnee ñu Imayel ne dafa soxla remboursement parce que loolu man dugaluma ko woon boos a ko dugal après boos ram bind ko yónnee leen ko après procédure bi di dem chaque jour boos maman jotuñu xaalis bi maman nii ma ni ko boos fii dafa am nu muy demee laajal ñoom Aïcha am na benn jour boo sax boo xam ne sax si groupe bi dañu xuloo ba ku ne tàng ma ni leen fii dafa am procédure muy demee hôpital man leer na man duñ lekk seen xaalis di dinañ leen ko delloo mais nag il faut ngeen pas il faut boss patient patiente parce que du da ngay ni mu ko ni mu dugale woon xaalis bi dem taxaw rek euh, ñu jox ko dugal mu dem noonu la hôpital bi def hôpital dafa am procédure ba nga jotaat ci mu ne ma waaw léegi tey ci suba euh, ñu jot visa bi ñu kii jot seen xaalis après ñu wootente nii ci ngoon gi bi ñuy wax ma ni ko léegi ma ni léegi bu waxtaan wax dëgg nag jotee nañ leen waxante dëgg boss jot nga sa xaalis jot nga sa visa yéen a ngeeg visa ummi mun naa ñëw su ummi ñëwee bu ko defee man dinaa ko wutal dem yóbbu ci assistance sociale yi su ko defee ñu wutal ko këy këyitu médical après bu boobaa day am codice fiscale te bu amee codice fiscale mën naa faju ci hôpital public yi su ko defee man dinaa ko yóbbu hôpital public yi ñu faj ko opération bi mu waroon fay dix mille euros sax dootu ko fayati day faju te du fay dara parce que am na codice fiscale bu ko defee deux mois après wala trois mois mu def regroupement familial nga ñëw mu ne ma man sama jabar du dem sans man. waaw hmm. ah, kon loolu. ko loolu moom ma ni ko loolu moom am nga ci droit. ndaxte kenn ku nekk kilifa nga ci sa biir kër li ngay doon doon xale. Hmm. lañ mais loolu du rafet. te yow maanaam lépp li jët gis ngeen gars yi. mama gise li mu waroon a def yépp def na ko boos nee na jabaram du dem ndax moom amul visa mel ne boos dafa làgge wala tànk yi daa dam wala dara da ko jot yow nga yor ñaari loxo yor ñaari tànk sa jabar nit ñi di ko dimbali Sénégal dugal seen xaalis ah nga ne yow du dem te visa wom génn tànk yow amoo visa non boos nag yenn yi moom day nuru soxor wala leneen quoi man damaa mënut a comprendre léegi nag lii ma Mama gisee lii da leen war a yee yow sax waxuma la ndax yow nekkoo woon ci ñuy ket xaalis yoroo woon di dajale mais papa africain ak Aïcha mii yéen laay waxal yéen ñi jël xaalisu sénégalais yi ak gambien yi dajale ko jox ko ñee yéen la ni waxal bi beneen yoone de bu ngeen di jël xaalisu nit di ko dugal fenn fa ngeen koy dugal na doon lu leer bu fekkee da ngeen di ketal nit wu leer seen kañot ngeen ubbi xaalis ba ngeen dugal ko fa bu fekkee la ngeen def sottiwul ngeen génneewaat xaalis ba jox ko jaamu yàlla yi ndax liggéey dafa métti xaalis dafa sox ci xol da ngay liggéey di dangi-dangi ba dee jël say dix mille say mille francs say cinq mille di ko maye ba mat ay six mille yaa ngi dégg loolu dafa metti liggéey bi liggéey la laaj pour nga am xaalis bi mën koo joxe nekku ne dañuy yëkkati xaalis jox leen ko rek waaw nanu jàppale boos gambien yi nanu génn sénégalais yi ñu génn léegi fi mu mujjee mi ngi nii visa am génn na demul ñaar xaalis bi téye nañ ko léegi nu muy demee ay sa ubbil sa micro ak Afrique ngeen wax aadamoo loo wax dégg la dégg nañ ko understand nga waaye comme nit ku dul juum amul ba pare process bi ñun foguñu woon ne dina demee nii parce que ñun yëpp fii lañ nekka boos ak umi ñoo nekka foofu ñu bugg a ñëw fii understand nga gis nga buñ dooree ket bi si boppam Mouhamed dafa ma woo mu ne ma Aïcha xaalis buñ dee comme Mouhamed daf dee bugg a comme suñ ketee suñ paree mu wax boos tey ñaata lañ am pour ñu xam Mouhamed bu mu ma waxee ne dañ war a xam ñaata ma ne ko Mouhamed ma ne ko ne man fogu ma ne boos dina jël si xaalis bi dara parce que moom moo bugg jabaram ñow ma ne ko ni xaalis bi fogu ma ne dina si laal dara understand nga ñun xamuñu woon ne nii la mooy demee suñ xamoon ne nii la mooy demee ni konte lii yëpp dañoo doon ut beneen account beneen wéef ñu dugal fa xaalis bi waaye xamuñu woon ne nii la mooy demee fooguma ne man suma jabar dina am problème oo suma jëkkër dina am problème tànkaam bi mu war a dem faju visa yam bi génn ma ne moom du dem parce que man aw ma man duma ko def understand nga te foog naa ñu nekk di seetaan life bi tamit du ko def waaye léegi Adamo léegi Umi si boppam mu ne moom demut mu ne Aïcha man maa waxoon ne damay dem léegi dematuma léegi ñun lan lañ si mun lan lañ mun si loolu. waaw léegi da ngeen da ngeen ni may may ma jël Umi. waaw léegi léegi da ngeen may may ma jël Umi. waaw yaa may dégg. allo. Oumy maa lay ziar yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm baax nee na mi ngi def demande ci téléphone boos. nee na ma jël ko directement. léegi damay wàccee biisu mu nekk yéen kese yéen ñi nekkoon ci groupe bi ngeen waxtaan seen biir. waaw. waaw moo gën quoi moo gën sax baana na xaaral ma jël. Mm. évité naa ko sax yéegal. Euh, salaamaaleykum maa ngi ñëw maa ngi dégg wax ji sànq ba tey déglu naa lépp nag. maaleykum salaam Oumy. Euh, gis nga Adamo man tey jii nii man euh, awma ma lenn lu may rapproché nit wala leen mhm. te boos li mu wax am na ci plein droit ndax nit doo tak sa jabar nga ne bëgg nga ko su ma bawee ma dem day mel ne xaalis rek ko ko intéressé man duma ma dem xalaatuma ko taw duma am kenn ku ma accompagner ndax Europe ba ku nekk sa bopp nga tal yow Adama wootante wax woo ma waxante nañ uh-huh, yow uh-huh. li ma wax yëpp nga ma Europe bi ku ne sa bopp nga tal yaa ma wax loolu wala waxoo ma loolu wax ne Europe boo fi ñëwee ku yow da nga sonn waxoo ma loolu Europe yow da xam nga lan moo tax ma loolu da nga ne ma. bëgguma ñëw Europe di liggéey yenn liggéey yi fay moodu moodu may ma ma ñëw da nga ne ma bëgguma ñëw Europe di liggéey audio ma teg ko mi ngi nii waaw audio yaa tegal sama jabar yow da ngaa a dem ak jëkkër sa jëkkër dimbali la jàppal Ci deve essere ma marito per aiutarla, non deve andare da sola. nee na war a dem yow kese. yaa wax loolu. loolu gel bee wax sama jabar. waaw rek yëpp dina dégg. sama jabar a ko wax. waa noppi waaw. partage partage naa leen ko sànq parce que dafa du nga du ko signalé moo tax. loolu moom ñoo ko wax. Eh, waaw yaa ma ko yónnee nga ne bu ma leen ko wax. maa la ko yónnee léegi nag boo tegee ba pare. maa leen ko partagé ay champs maa ngi gisee. waaw Fatou Mbacke def naa leen ko sànq. Ah, Mouhamed mii nag dafa xaw a soof moom daa mel ne dafa bëgg bës quoi Mouhamed mii sa xarit bii. lan la def waaye fi muy yéeg ñuy wax umbi fu dem ñu xas ko mu yéeg naan day def ay détails dafa bëgg bës trop man seetlu naa laay fu dem abonné leen nan topp kaa bi waa abonné ñu abonné ñu yëfu dof yooyu rek. loolu maa ko waxtaan ak ay fii ñuy xasee yi déedéet. ah moom tamit na bàyyi dafa wérul ngeen ne fi muy dugg te abonné moom dafa bëgg bës na dem wuti ko waay na dimbali nit ñi ah ba ci kanam. léegi man naa teg déedéet. fi umee bës bi ak naa teg man léegi. ah. bos mën naa léegi ñu nekk li ngeen di teg nii amul sens de. li ngeen di teg nii amul sens de mën naa teg. am na sens kay. ok léegi man mën naa teg. waaw Mohamed. Mohamed mii nag dafa xaw a soof moom. waaye ni teg ko léegi teg nga ko dama ne ndax man mën naa teg samay audio. lii ak lii moo ñëw nga yëpp ay audio ay audio ay sa ngay teg. ma mën naa teg. ok léegi toogal ci live bi nag bul génn. toogal ci kaw de comme que pare nga Mouhamed yaa ngi may dégg. yow rek laay déglu boos. waaw kay umi waa pare guma de. non maa ngi ñëw non non da nga pare ndax yéen gàcce moo leen di rey da ngeen a dajale alalu Sénégal yi lekku leen ko. jël yalwaan yalwaan xaalis Sénégal yi ñu jox leen ko ngeen dem toog ko di ko noose naan da ngeen ci suuf bi wala ay yére maanaam gàcce moo leen rey amato loo wax gàcce moom moo leen rey mamaa gisee li mu wax dëgg la papa Mouhamed li mu wax dëgg la Aïssa li mu wax dëgg la. boos ñàkk woo fàtte woo da ngaa ñàkk dayu fayda. xoolal def na de yor say yor say loxo yor say tànk làgge woo sa jabara feebar nga lànk ne du dem du faju ji yow gàcce du la rey yor say dammal yor ay xuur sa sa jabar la tànk bi jëkk sénégalais yi yërëm ko dugalal ko xaalis nga ñàkk da bay bëgg dee ne doo ko bàyyi mu dem faju ji naan da ngaa soxla visa looy liggéey bay am visa doo dem liggéey boo bëggee visa nga wutal sa bopp visa ñàkk nga fayda ñàkk nga fulla booba tey état kaw ma la de maa ngi ñëw de yow maa ngi ñëw ci audio yi pareegu ma de maa ngi ñëw ci say audio yow umbi euh, Aïssa yaa ngi may dégg Aïssa yaa ngi may dégg Mohamed yaa ngi may dégg yow rek laay déglu boos umbi mii moo umbi mii moo ma wax ne ma yéen ñaar succès ngeen bëgg da ngeen koy dimbali si succès ngeen bëgg yéen ñaar bu ngeen yéegee ci laay fam da ngeen yow. waaw génne loolu génne loolu ma wax aboneel ma delloo la ko aboneel. boo bëggee ma teg ko fii léegi waaw kay barki Serigne Babacar si mi ngi nii. waaw d'accord ma tontu la audio ni ma yor ci audio yoru ko de. waaw ma dàqateeg audio ci àdduna bi mais xam nga luy problème bi problème bi mooy bu dëgg taxawee audio du feeñ dëgg bi mooy ummi sa tànk bi dafa cëkk da ngaa da ngaa laago. déglu ma ma ñëw da ngaa laago sa tànk sa tànk dafa cëkk sénégalais yërëm nan la dugalal nan la xaalis demal faju ji mënoo faju ji dellool xaalis bi seen nit ñi amul dellool xaalis bi seen nit ñi boos du yàlla du yonent bi làggewul dara jotu ko paatewul bëtam dara sikku si tànkam dara sikku si làggewul yow yaay làgge yow la sa tànk cëkk yow la ni dimbali ngeen jël xaalisu sénégalais yi chaque jour damaa yalwaan sama jabar daa feebar tànk bi daa cëkk dimbali leen ma te buñ leen dimbali du ngeen faju du ngeen faju du ngeen génn. Adamo déglu lii. du ngeen faju waaye nii waxuñu la ko waxuñu la ko li ngay teg ni amul solo gàccee leen di rey li ngay teg nii kenn dégloowu ko li nu wax mooy a ah, nga dem faju ji wala nga delloo xaalisu sénégalais yi loolu moom mooy wax ci li ngay teg ni ay ojo déglul li déglul laa rus moo leen jàpp ak gàcce yalwaan ngeen ba am 6000 euros ne dematu leen tukki ndax kenn yow yow ni nga ñàkkee fayda. yow sa tànk cëkk Sénégal yi yërëm la nga lank ne doo ko mottali ah boos ngay xaar mu am visa yow ngay ab dof da ngaa wér yow moom xaw ma fu la boos takkee mais wéroo barke Serigne Babacar wéroo tëjal sa micro bi sa biir bu bëri ay yaa ngi may dégg. Adamo dama laa laaj lan mooy succès. nee na wuy ma audio yi wax moom. damay mm. bàyyi ba mu wàcc. ma mm. tegal leen ko li mu wax ci Mouhamed. wax ko ci yow mi wax ko ci ma maa Guissé damay bàyyi ba mu wàcc live ma tegal ko. waaw baax na yaa may dégg. lépp maa ngi ak moom enregistré naa lépp jël naa appel yëpp. appel bu ma wax ak moom enregistré naa ko. yaa ngi may dégg. waaw léegi wàccee defal ndayam. est-ce que boss mun naa wax léegi. déglu non may ma ma ñëw naan dañuy teg ay ojo li mu wax ci Aïssa dama ne ko groupe bi ubbi nañ ko benn ojo bii lañ ci dugalagul woo naa tamit Aïssa ndax li ma doon wax naan Mouhamed daa bëgg bës woo naa Aïssa ne ko ah Mouhamed tamit na bàyyi arrêté. parce que yi muy def nii day nuru bës moom ummi moom ma wax nee na yow Mouhamed saa yoo yëgee ci laay fam aboneel ma delloo la ngay wax. ay waxu bës nga fay def. man nee na yéen ñëpp système moo leen ñor ak leneen ak leneen. li mu wax audio yaa ngi nii ma téye. maa ngi ko enregistré lépp. waa léegi lan mooy succès mënuma understand. maa ngi lépp te yéen da ngeen ko doon dimbali te yàlla tax. maanaam ma expliqué la Aïcha lan mooy succès. Oh waaw li ma yor ma a wax mooy ne man dama de. moo tax. dama xaaral ma expliquer ay sa rek succès bi bi mu. comprendre expliquer ma ñëw. voilà so basically mu ne ma dama nekk di éeg pour am ci success bu ko defee ma mun cee am attention so that dinaa mun a am ay followers. loolu la mi attention for what followers attention ma rek Aïcha ma tontu loolu ma tontu kii dara sudaati ah, boss gis nga boos man man duma ci dellu gannaaw su ma wax laay waxaat rek te dinaa ko waxaat fii si sa ku ko gisee ñàkk fayda wala ñàkk jom man dinaa la ko nagul man dama soxla ay abonné parce que dama soxla pour mun a am ay nit yu may mun a waxtaanal pour ma mun a wax mun leen a wax Mouhamed Mouhamed déglul rek déglul pour wax la ne la man duma fen li ma yor ci moom bu ma ko tegoon àdduna bi tukki mais bañaluma la ko déglul bañaluma la ko mais man damay damay ut ay abonné waaw Mouhamed déglul ma tegale lii ok d'accord yaay solo day taxaw naa may leen ma ñu ne abonné leen luñ am ci TikTok ñuy imaginer ñu waxee une solo day taxaw naan may leen ma ñu ne abonné leen ma ñu abonné leen ngeen waaw loolu moo di yëfu nit loolu tamit tàmm na ko wax. yooyu ma ne ko loolu di yëfu nit déglu rek déglu rek bu dee kooku nit ñi loolu la ñuy wër moom bu ñu arrêté ko. déglu rek loolu di yëfu nit. waaw ay ma ma abonné après ndax bu a dégg nga lii moo ko wax nee na yow loolu rek ngay wër. waaw baax na ma abonné leen si si di wër. ak yeneen ak yeneen yu ma war a teg. bëri na de mais maanaam gàcce moo leen di rey moo tax. li ma enregistré ci appel du jeex. Adama dégg ko dàq enregistré ba may def lii judduwul. waaw Adama dégg naa la de tamit xam nga da ñu invité si sa plateforme si sa live da ñu may tamit ñu waxtaan ñu dal. man comme ni ma ko waxee rek du ma ci dellu gannaaw. man fu ma dem dina fa laa ci abonné parce que dama soxla ay nit. kuy def ko xam ne da ngay dox pour kii pour dimbale ay jaami doomi aadama il faut nga am ay nit yooyu mun a dem pour wax leen. boo jàng naa ci lii ci umi. umi dama fagoon ne gor la te du ma nangu mu gën maa nekk gor moom ak boos. man jàppale naa ko fi yow taxaw nga am nga loo fi waxut ma taxaw fi ma taxaw ak ñoom umi waaye man maa déggal suma bopp audio bi baax na jégal naa ko yal na def li si ñun ñëpp non des na li mu wax ci mama gise ak li mu wax ci Aïssa. man maa ko arrêté ndax dama doon neex ñu wax yëfu seytaane ak di ko di muy am mais comme que dafa yëg jëkk ci ay audio xamul ne gën a doxaan ndeyam yàlla sàkk looy wax ak moom da yore mais dalay bàyyi ci biir dafa dof rek. des na aduna si yëpp xam nañ ne ba pare ma ñëwaat dama fi taxawu Oumy ak Aïcha dañ leen taxaw moom a boos amul fu ma ko farlewut laay bu buñ taal di ko saaga maa fay duga di ko jàppale ak Aïcha kon su toogee fi tey di wax ne man a abonné rek maa ko wax abone leen ma te dinaa ko wax fii ci laay fii Adama kum neex nga abone ma ku ma abonné muy loolu lu ma ciy ragal lu ma ciy tiit loolu mooy TikTok dañuy toppante dañuy abonné wante loolu nekkul problème te duma ci rus man foofu laay daanelee nag lu waay def boppam waaye merci Oumy jërëjëf boos ay sa ñëwal. moom Adamo man dama am disappointment man musu musuma wax nit ne follow leen ma si Oumy si gaay seen live musu musuma wax nit le euh, follow leen ma. Oumy nee na xam nga leen ngeen bëgg yéen. bu paree ma doog leen tegal audio bi yéen ñi ñëpp muy yow ak kii ak kii da ngeen koo bëgg a dëddaleeg jëkkëram jaxase kook jëkkëram moo ngi nii maa ko téye loolooy seen liggéey. waaw ñu bëgg. nee na loolu moo leen tax a jóg. yéen ñett ñëpp waaw baax na jërëjëf. te yéen da ngeen koy jàppale. xam nga mënoon naa ñëw taal salaamaaleykum jublu ci ojo yi déedéet xam nga lu tax dama ko doon suturaal ndax dama bëggul ndeysaan lu ñaaw dal ko. moo tax ma ne naa live live bu simple. mu ñëw di yéeg naan déglul yaa ma wax lii sama jabar la doon waxal sama jabar moo ko doon fokaal naan ko non lu tax mu fay bàyyi marito bi xam nga tubaab yi mais mm. tubaab yi seen xam-xam ak ñun suñu xam-xam bokkul dama ne la yow la sa tànk tëkk mm. dama ne la ay sa yàlla may na la ay cër yu mat laaga woo pëtte woo yaa ngi dégg sa dara jotu la photo tànkam bi ma yónnee yax bi di bulleeku di feeñ mu naan ma dimbaluñu naa leen afficher tànk umbi bi ngeen gis ni mu mel maa ngi yax bi déedéet Adama bul ko affiché. non dafa nàkk rek maa ngeeg tànk bi yax bi fa muy génne ak fa mu commencé maa ngeeg moom man Adama. naa ko affiché yow bul ko affiché rek ma daaneel mayoo ma daaneel rek beneen bi ci tegu mooy euh, Aïcha yow ak euh, Mouhamed ak euh, Mama Guissé lu baax ngeen doon def. lu baax li ngeen doon def mooy da ngeen ko doon dimbali te yàlla tax mais ñii ñoo jërul dimbali ndax amuñu jom amuñu kalaas ummi ñàkk na personnalité amul classe yow yaa ngi yor benn tànk sa tànk ngi cëkk nga nekk lafañ bu doxaan ndeyam sénégalais yi di la jàppale nga wow gat wow bët bu nu waxee nga jël sa tun ngi di ko man ba ma gisee ngeen koy jàppale sa dama ko jëpp man dugal naa sama xaalis mais bëgguma ko woon lafañ bu yéeg fenêtre fan la am fii la fi match am muy tëb ku mën a tëb ay fenêtre kay man ngaa doxi xam nga lan la nan bàyyi suñ jaaxaan yi nanu bàyyi suñ jaaxaan yi beneen bi ci tegu mooy boos wax naa la ko dinaa la ko waxaat ay koy nga yor da ngay koddal góor yàlla nga sa dambal yi dafa aju fees dell ak esperma bu dee boog yaa ngi koy sentir yow laage woo patte woo say tànk mën na say cër mat doo dem liggéey nga wut loo am chaque jour ngay jooy topp palaato yi gàddu yaayu jàmmoor yu yóbbu nit ñu cëkk ñi ngay wër ak borom tàkk yu matul li yow daal lu nekkul lu cuur jarum cëkkul bëggoo fi dool toll nii bu sañoon tànk ummi bi du faju ndax tànk bi ci lay amee bës ci lay tedd ci lan kay saraxe maanaam ummi bu yoree tànk di daagu loolu arrangé wul boos du ko nangu boos daa yàgg saxoor ci tànk jàmmoor bi lafañ yee ko neex fii la fi gàddu yaayu jàmmoor ku tànk bi cëkk yaay ju cëkk mu dem yóbbu ko naan mooy sama yaay lu ko fi jar ku ne mu gàddu la jagar-jagar yi yóbbu ci plateau yi salaamaaleykum sama yaay ngi nii jooy duul la man dafa war a wàññi ni mu mel lii moom mooy wax ji yéen ñaar nag yéen a dugal seen bopp ci erreur ndax ñii jëruñu ko ma mama gisee ngi nii maa ngi appel yi ummi nee na ma fenkat la li mu nettali demewul noonu li mu wax lépp demewul noonu te mama gisee li mu wax dëgg la. mu ne mu ne mama gisee mii li mu wax du noonu parce que ma mama gisee nee na da leen a woo ne leen dañuy bloqué visa bi nangam nangam kon waxul dëgg bu waxee lii nangam nangam mais ma gisee li mu wax dëgg la visa bu ni bloqué amul loolu la waxaat ci live bi. ñii ñoo jërul jàppale man appel yi ma wax ak moom yëpp dama ko enregistré tey ko fii laa ko def ñii ba may ñii xanaa xamuñu kan mooy Adamo Aïcha. man loolu moo ma jaaxal man moom dama. xanaa ñii xamuñu Adamo. Adamo man de yàlla ak yonent bi rek. ak yërëm ko garaaw man de dama ko doon jàppale te yàlla tax. bu dee dafa traité fenkat baal naa ko. moom ak jëkkëram journalu day na ñoom. bu taxawoon tey jii. duñ na ma fenkat te ma Sénégal te bu déggee baat boobu barke sëñ Saaliw xam naa ko Italie gii la juddoo fi la yaroo manga nga Sénégal moo leen mag moo leen moo leen ëpp moo leen sut yaa ngi may dégg. waaw man du ma ko wax dara baal naa ko lépp luñ ma wax baal naa ko ndax sama xol moo ma tooñ ci ñoom. visa bu ñuy bloqué kenn mësu koo gis ku jàngu ku jàngul sax xanaa xam nga ni visa bu ñuy bloqué amul. léegi nag moom am na droit ne jabaram du ñëw te sans moom loolu moom moom la am na ci droit. am na ci droit kenn bañalu ko ko ndax kilifa la ci biir këram li muy doon doon xale wax naa ko ko ñun li ñu waroon def def nañ ko suñu jaan wàcc na man bañ naa ko ba lu ma bëggoon mu leer daal mooy yu joxuma dërëm mësumaa jox dërëm mbokkam bu taq ci moom mësumaa jox dërëm li ma ci doon def lépp maa doon fayal sama bopp ba ci document yu may yónnee sax GP bi maa koy fay leer na document yu ma mas di yónnee GP bi maa koy fay